maa ngi nuyu Sénégal sénégalais yëpp ak sénégalais yëpp di sant sunu xaritu journaliste yi suma mbokk journaliste yi nga xamante ni yëpp def nañ déplacement bi ñëw tey fekke si li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi ñu bëgg a seq ak sénégalais na tablewu leen ne fan yi yëpp sénégalais yu bari ñoo ngi naan Papa Djibril Fall gisuñu ko dégguñu ko. waaye ñi ñu xam yépp xam nañ ne su coow li baree kenn duñu ci dégg kenn duñu ci gis buy taw tamit ni ñu koy waxe kenn du fobeere loolu moo taxoon ñu ne woon tekk di xaar waxtu wi jot ngir ñu waxtaan ak waa Sénégal yi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew leneen li it waral tekk tekkaaral bi mooy kenn dañoo yóbbaalewul ci dara duñu ko nangu ni ñu waxe woon ne doonuñu bu ma sàmba doonuñu bu ma demba bu askanu senegal lañu doon dañoo jóg bàyyi li ñu nekkoon ànd ak sénégalais yi ak sénégalais yi nga xamante ni li ñuy dox ñor na leen ngir ñu soppi doxalin bi nga xamante ni moom moo am ci réewum senegal loolu moo tax bëgguñu ku ñuy yóbbaale ci loo xamante ni xamuñu lu ñu doon xamuñu kan moo ko yëkkati xamuñu kan moo ko yëngal xamuñu fu mu jëm loolu moo tax ñu ne woon tekk ba tey jii ci bés bi nga xamante ni bés bu am solo la di bésu 25 février 2024 ñu waxante woon ci ak sénégalais yi ngir lii ñu jëloon dénk ko Sénégal li ñu jëloon dénk ko président Macky Sall bés bi nekkoon bés bi nga xamante ni ci lañ leen ko waroon a delloo ngir li ñu sénégalais yi waxoon. ne bés bi ci lañ ko waroon a jël delloowaat ko ñi euh, kàddu delloo ko askan wi askan bi daan nag ki nga xamante ni moom la bëgg mu jiite ko juróomi at yi nekk ci suñu kanam loolu lañ président Macky Sall xañ Sénégal waaye it loolu la politiciens yi yàgg jëflante ak réew mi moo tax ma jàpp ne Sénégal benn jàmbaar la am mooy peuple sénégalais mooy jàmbaar peuple sénégalais peuple sénégalais mooy muñkat peuple sénégalais mooy jàmbaar joo xamante ni gaañ nañ ko façon gaañ bu nekk xañ nañ ko lu nekk xañ nañ ko jàmm biir xam nañ xañ nañ ko jàmm biti xañ nañ ko taw féexam ba ay ndawam amatuñu yaakaar ay magam amatuñu yaakaar ay jigéenam amatuñu yaakaar ay góoram it amatuñu yaakaar ñi nekk ci jàng njàng mu kawe mi amatuñu yaakaar gis ngeen fan yi ngeen gis bataaxal buy wane ne ñoo ngi tijjiwaat université Cheikh Anta waaye université Cheikh Anta ba mu tëjee it ba université Gaston Berger tijjee yëngu-yëngu yi ba mu fa amee dégg la ñu defati étudiants yi rey étudiant deeti te étudiant bu jóg dem ci université pour jàngi dee taxul dee yóbbuwu la fa xam-xam moo la fa yóbbu te loolu du lu bees lu yàgg la ci réew mi kon université jàpp naa ne deux mille vingt quatre bii politiciens yi war nañoo góorgóorlu ba bu ñuy def seeni mbir ñu épargner ci université yi ba kuy deeti dootul doonati étudiant bu ñu sañoon kenn du dee ñun li ñuy wax boobu ba tey mooy bu ñu sañoon kenn du dee ci politique depuis mars deux mille vingt et Sénégal daanaka lu toll ci téeméeri nit faatu nañ fi ci loo xamante ni jàpp naa ne ay immaturité homme politique yi rek ñoom ñoo leen ko teg. 1962 la ñu njëkk a vivre les première violences politique au Sénégal 62 xëy na sax am na lu ko jiitu 62 la ñu lakk ay bureau de vote ci Saint-Louis 62 kon violence boobu lan la lan lay jëriñ a chaque fois boo xamante ni fauteuil bi taxaw na fauteuil bi bu taxawee moom politiciens yi dañ naan kaay leen ñu rayante kaay leen raya ngeen dee pour ma toog ci fauteuil bi dara jaru ko dara jarul dee. àdduna ak li ci biiram yilif ko jarul kenn di dee ñun loolu mooy suñu conviction la plus forte et la et la réaffirmons et nous avec la dernière énergie képp koo xamante ni dangay dangay da ngay da ngay la violence ak forme bu mu mën a doon nag laa wax forme bu mu mën a doon ñun dañ koy condamner amoo koo mën a nekk ci réew mi di def politique te boo defee lu dul yoon duñu la wax ne la li nga def du yoon amoo koo mën a doon ku mën a kon sénégalais yi sonn nañ am naa ne journalistes yi sax sonn nañ ndax gis ngeen keroog li ñu def sunu mbokku taskatu xabaar yi te loolu xëy na bu fekkoon ne débat économique bi jël na le dessus définitivement bu élection jàllee mënuñoo nekk ci campagne électorale campagne électorale jamono bu ci nekk c'est pas possible dafay am jamono politique am jamono liggéey mais mënuñu saa bu ñu génnee ci ci benn kii politique ñu dugalaat ñu ci beneen ba nit ñi du ñu mën a am jotu def li nga xamante ni moom la ñu bëgg a def mooy def seen liggéey donc vraiment ça suffit largement te loolu euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy les politiciens professionnels ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fas yéene dundee politique ak les rentiers de la tension yi nga xamante ni bu xuloo amul ak xeex ci politique amul du ñu dund ñoom ñoo bëgg a gàllankoor sunu réew mi ñoo tas sunu réew mi donc te loolu jàpp naa ne doy na sëkk mënatul woy euh, leneen li nga xamante ni am na solo te ñu bëgg koo wax mooy li ñu tuddee le deuil de la politique de la démocratie loolu jàpp naa ne lu metti la loo xamante ni am na tey ci Sénégal 25 février 2024 loolu tamit ñu koy naqarlu bu baax ndax tey rendez-vous bu am solo la woon may nuyu su ma waa dëkk muy waa caajaay yi nga xamante ni tey bis bi dañu waroon a xëy dem voté ji mu nekk une fête de la démocratie ñu saafonte ak mbokk yi ñoom ñépp ñu ko doon waajal ma leen di massawu ñoom tamit waa caajaay comme ni may massawoo waa Sénégal yépp di leen wax ne nañu defarwaat gën a taxaw xam ne bés du ñàkk élection yi foog ñu jàpp dat bi dem ci élection yi ñu soppi li nga xamante ni moom moo fi nekk bés du ñàkk kon kon euh, ñoo ngi leen di gërëm ñoom it di leen sant ci seen taxawaay ak seen gunge ak ni nga xamante ni ñooñu noonu lañ ñu jàppale di leen masawu tamit ci seen coono yi nga xamante ni Benno Bokk Yaakaar moo leen ko teg depuis 2012 ni may masawoo waa Thiadiaye noonu lay masawoo waa Sénégal yépp ndax ñëpp sonn ci ñoom ni ma ko waxee woon keroog assemblée nationale def naa tuuru Sénégal bu dul benn du ñaar waaye nee naa leen keroog ci kaw assemblée nationale bi ñu jàllale seen loi boobu ne leen ñeenti sénégalais yu ma dajal ñett ñi pare nañ ci Benno ci Benno Bokk Yaakaar kon les gens aspirent à autre nit ñi bëgg nañ ñu gouverner leen neneen nit ñi bëgg nañ guerre jóge fi nit ñi bëgg nañ euh, mal gouvernance jóge fi nit ñi bëgg nañ ñu yor Sénégal yor bu mucc ayib loolu moo tax dialogue bi ñuy woote ñun jàpp nañ ne jaloog lu am solo la jàpp nañ ne waxtaan lu am solo la waaye nii ko politiciens yi di defee dafa dem ba tax dina tax bés dina jot waxtaan jot te du ñu mën a waxtaan ndax dañoo nekk di fooye baatu dialogue baatu waxtaan waxtaan lu am solo la wax nañ ko waaye nii ñu koy defee dañ ci ñoom am ay ambition yoo xamante ni ay ambition crypto personnelle lay doon pour gérer ay carrières politique des uns et des autres pour revenir ci li tax le président Macky Sall annulé bi euh, élection bi te ñu jàpp ne reporté ko te ñu jàpp ne waru koon a def mooy en 2012 dafa am sénégal yu jógoon ne dañoo bëgg a nekk président de la république dem ci parrainage bi mataluñu ñu ne leen yéen dem leen toog mënu leen a nekk candidat processus bi continuer ñu fal président de la république en 2012 mu tudd Macky Sall en 2019 lu toll ci ñaar fukki nit ak juróom le C25 la ñu ne yéen mënu leen am parenage dem leen toog ñoom ñu def seen voie de recours yépp mais terewul ñu dem ci élection mais en 2024 ñu ne am na ci ñoo xamante ni recalé nañ leen ñu ne kon léegi on va reprendre tout le processus mais au nom de kenn comprendrewul te loolu jàpp nañ ne du dëgg du yoon te histoire dina retenir képp koo xamante ni yaa jàppale président Macky Sall ci mbir mi ñu jàpp ne njombe gënu ko mag loolu moo tax ñun ñu jàpp ne su fekkee ne loolu rek lañ fay wute conseil constitutionnel li mu wax président Macky Sall leer na te loolu na ko jëfee dane ko fexeel ba le 2 avril na fekk nga joxe lii nga xam na fekk nga organiser élection yi te ñun loolu dans ce sens là def nañu. ay proposition yu concrètes de sortie de crise parce que dugg nañ ci crise ba pare ba nga xamante ni soxlawul woon ñuy dajale sénégalais yi dajale euh, candidats yi naan leen nañu dem dialogue beneen bi mooy dañoo jàpp ne président Macky Sall dafa ñàkk jox cër ñi nga xamante ni kenn ci ñoom moo ko war a remplacer. gis ngeen communiqué bi si Sidiki Kaba def nee na les 19 candidats ñëw leen président dajale leen waxtaan ak yéen ci une de temps su paree waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom lañ tuddee les recalés 19 candidats. mu ne leen une de temps ñëw leen ñu toog waxtaan pour waxtaane lii nga xamante ni jàpp nañ ne euh, moom ci boppam moom moo ko créé ñun loolu moo tax ñu ne duñu ci dem yablewuñ ci décision yañ fay jël tamit très sincèrement jàpp nañ ne jëlul en compte les les intérêts des générations futures te loolu mooy le problème de du politicien sénégalais mooy buy jël décision dafay xalaat peut-être la prochaine élection mais du bàyyi xel la prochaine génération loolu moo tax ñun bi ñu dugg politique dañu ne bu ñu naree def comme gars yi vaut mieux ñun ñu bàyyi suñu naree def comme ñoom vaut mieux ñun ñu arrêté loolu moo tax bëgguñu def comme ñoom moo tax it bëgguñu fépp foo xamante ni dañ fay poser acte boo xamante ni dafay trahir espoir u peuple sénégalais ñun ñu yàlla kenn gisuñu ñu fi loolu moom moo waral ñu jël position bi ñu jël daal dina dialogue bi duñu ci dem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 dañoo bañ bañ ñu bëggee def euh, bañ ñu bëggee jox alal dañoo bañ nanguwuñu ku ñu ger nanguwuñu ku ñu jox ay poste parce que dugguñu nekkuma candidat à la présidentielle pour être ministre loolu si dama bëgg mu leer nekkuma candidat à la présidentielle pour être chef d'agence loolu suñ ko bëggoon démb la loolu am nañ ko yàgg na donc loolu aussi dañ ciy dalal xelu sunu ñi ñuy jàppale ci biir réew mi ak ci bitim réew xam ne ay positionnement ci politique dugaluñu ci politique très sincèrement loolu ñi koy xalaat mooy ñi ñu xamut wala ñi nga xam dañoo parparloo ba yàqu ñun dugguñu ci politique pour positionner wu di fii nekk benn ministre wala ñëw nekk chef d'agence wala directeur d'agence ak yooyu loolu duggaluñu ci politique dañoo dugg ci politique nekk candidat à la présidentielle pour remplacer le président Macky Sall ndax jàpp nañ ne fi ñu duggee ci politique Sénégal soxla nañu Afrique soxla nañu soxla na suñu xalaat soxla na nañu liñ ci indi ci politique ci jom ak ngor soxla na ko li liñ ci indi ci fit ak jom soxla na ko liñ ci indi ci xam-xam ak hikma tamit bu mat sëkk soxla na ko boole kook ak xam-xam boole kook teggin boole kook yitte ju mat sëkk loolu moom moo tax ñu dugg ci politique moo tax tous les gens qui ont tenté et ils se reconnaîtront de nous déstabiliser ñoom ñëpp dañoo mujj yéemu ci yàlla ndax xam nañ ne ah ñu de li ñu foogoon loolu nekkul ñii jim nañ ko ci xupp ñii jëm nañ ko ci xëpp ñii sos nañu ba sonn ñii wër nañu plateau télé yi lu ne wax nañ ko ñun ñu dëgëral suñu dox rek xam li ñu bëgg xam niñ koy wutee di ko wut ci jàmm di ko wut ci teggin di ko wut ci yar te noonu ñuy wute noonu lañu ñu fas yéenee yor noonu lañu ñu fas yéenee yore Sénégal kon encore une fois encore une fois Euh, l'intérêt de cette rencontre c'est d'abord de dire que politiciens yi bu ñu foowee askanu Sénégal rawatina ñiy wax ci kaw di wax ci suuf rawatina ñi nga xamante ni aussi dañuy jël ay position bañ ko assumer la politique responsabilité corollaire am seexandoolam mooy assumation su dee da ngay def politique te ñemewoo assumer bàyyil su dee da ngay def politique te amoo courage politique bàyyil su dee da def politique te yàlla dimbaliwu la nga mën a muñ li nga xamante ni moom mooy alal ju léwut bàyyil su dee dangay def politique te noppiwoo ci sa bopp ci ay jikko yoo xamante ni di nga lu bari di nga ko rus di nga ko jomb bàyyil et loolu c'est un message à l'endroit de toute la classe politique et loolu c'est ça qui est des entretiens ak des rencontres yi ñu def ci askan wi askan wi dañ wax nañu lañ ñu digoon depuis 64 ans loolu gisuñu gis ngeen li xew bërki démb wala démb Kédougou daanaka ci fan yi ñu romb lu toll ci juróom-ñetti nit faatu nañ ci éboulement yi nga xamante ni moo am ci foofu nga xamante ni fa la ñuy wutee li nga xamante ni moom mooy or bi lu toll ci juróom-ñetti nit insécurité bi insécurité fees dell ci réew mi bu ngeen demee fii di dégg ngeen ko keroog li xew Seras ma leen di nuyu ay jàmbaar yu fa nekk di liggéey am fulla am jom bëgg lu ñu yóbbu lu ñu yóbbu lu ñu yóbbu seen kër euh, lu lew ay rendeek lu ne ngeen fay dégg ndax ñàkk sécurité Seras ak na mu amee solo yépp ñu ne benn ASP lañ fay teg pour mu assurer la sécurité loolu su fekkee ne da jàpp ne yaa ngi koy def parce que da nga bëgg nit ñi parce que nga bëgg a taxaw nit ñi li ngay def at li am wuute na te njiit li ñuy xaar ci moom mooy mu am yërmande ci askanam gaay yii may gis ci ñenn ci ni ñu yore nguur gi ak ñenn ci ni ñuy wute nguur dama cee gis ñàkk yërmande bu mat sëkk ñàkk yërmande bu mat sëkk laa ci gis wut nguur rek bëgg fauteuil bi rek tax ñi yàq bëgg a yàq réew mi ñi bëgg a yàq jikko yi ñun jàpp nañ ne loolu ñu ko seetaan mukk ko rempart la ñuy doon contre loolu parce que li ñu ëppal solo du fauteuil bi li ñu ëppal solo du élection li ñu ëppal solo du mandat suñu digganteek Sénégal weesu na mandat weesu na élection suñu digganteeg Sénégal gën naa sori loolu dafa am ndono loo xamante ni moom lañ fi fekk mag ñi bàyyi ko fi les pères fondateurs les précurseurs les francs ñu ñun loolu la ñu bëgg sàmm loolu la ñu bëgg a ñoŋal ba nga xamante ni ëllëg bu ñu dajee ak ñoom du ñu rus dinañ ne ah lekk bi ngeen fa bàyyi woon kat sàmmal nañ leen ko mieux encore góorgóorlu nañu ci góorgóorlu nañu ci ba fexe nañu ba bàyyi fa jikko yu tedd yoo xamante ni tey doomu Sénégal dootul ñee kenn ci àdduna bi nga am pétrole am gaz am lépp ba pare say ndaw di jël ay gaal di dem ci géej gi loolu jàpp nañ ne musiba la kon encore une fois ak toute la violence bi nga xamante ni wax naa ko léegi tudd naa léegi ci sama discours bi may wax ci français suñ benn militante boo xamante ni Chacha la tudd euh, nekkoon Maroc bi ñuy waaj dugg ci élection yi mu ñëw Sénégal pour ànd ak ñun ci li nga xamante ni moom mooy campagne bi nekk jigéen bu jàmbaare moom ngeen seen keroog mu sol maillot Sénégal boobu ñu yégal ko ci benn pick ak policiers yi di ko dóor dóor yu métti yooyu kon loolu ñoo ngi koy condamné di ko dénoncé di ko massawu tamit parce que ba muy jógee Maroc di ñëw fii dafa ñëwoon pour campagne pour vivre un grand moment de la démocratie sénégalaise noonu la ñuy massawoo tamit ñépp ñi nga xamante ni victime de violence quelle que soit la nature de la violence ci processus électoral Sénégal waratul am processus électoral di am violence ñun loolu la ñuy condamné loolu la ñu jàpp la meilleure façon de changer loolu mooy ñu renouveler li nga xamante ni moom mooy le personnel politique ak vision bi ñu am ci politique parce que kaay ma kaay leen dénk ma rek mais jarul rayante aussi jarul jarul dee jarul rayante kon encore une fois nu demando au président Macky Sall nous demandons au conseil constitutionnel nu demando à tous les acteurs yi nga xamante ni ñoo war a intervenir ne leen nañu def élection yi avant le 2 avril et que les serviteurs en l'occurrence sunu coalition Papa Djibril Fall président jàpp nañ ne mooy bi nga xamante ni moom la sénégalais yi soxla pour mu ñëw remplacer ki nga xamante ni moom mooy le président de la république le euh, jàppaguñ dat dat bu ñuy jàpp comme fexe na comme comme comme li jën dinañ ba xañ suñu dat bi waaw voilà nañ ñu dimbali defal ñu loolu parce que sénégalais yi loolu la ñu soxla koo dajeel danaan la njàqare bu mag la àndal ñëpp jaaxle nañ kon njàqare boobu encore une fois politiciens am nañ habitude di ko teg sénégalais yi mais nañ ñu dimbali ba génn si ba mën a jàll ci leneen en tout cas ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant su fekkee ne su fekkee ne je parle je je une dérogation par rapport ak Gémodi su fekkee su fekkee am nañu ay question ñu jël ko suñu amul question ñu ñu ñu ñu ñaanalante